fii euh, actuellement loo bi dix mille masques la dix mille masques yi quatre mille masques euh, euh, coopération Luxdev moo jox mairie de Mbacké quatre millions yoo xam ne deux yi jënd nañ ci lu toll quatre mille masques nag artisans yi nekk ci dëkk bi ñoo ko ñëw six mille masques bi moom lañ commandé mi moom lañ bëgg a boole yëpp tey ci àjjuma ji ñu mën a dem ci bërëb yi nga xam ne ci jullee àjjuma mooy jumaa yi jumaa bu ci nekk danañ la jox minimum 200 masques am nañ fukk jumaa ak ñeent yoo xam ne ñooy jullee àjjuma danañ jox tamit ki nga xamante ni mooy eglise bi 200 masques minimum suba fas nañu yéene ñeenti marché yu mag yi nekk ci dëkk bi ñu distribuer leen 4000 masques dimanche li des ci masques yi ñu séddale ak artisan actuellement ñu ngi waxtaan ak IEF danañu jot euh, li nga xamante ni mooy limu élèves yi ñuy def examen yépp ñun mairie dinañ jël engagement pour élève bu ci nekk ñu jox la benn masque ñu jox la ñaari masque wala ñetti masque li ko waral mooy élèves yi def yi nekk en classe d'examen ëpp Mbàkke lañu ñu ñëw te boo xoolee 80 pour cent élèves Mbàkke yi ñu ngi jóge Touba ak ci yeneen commune kon élèves yëpp ñun la ñuy fekk si kon nag li war rek mooy jël les dispositions yi nga xamante ni buñ ko jëlee danañ mën a sécuriser xale yi ndax buñ leen aarul mën nañ fay jële tawal bi comme it mën nañ ko fee kon li nga xamante ni moo jëm ci masque yi dañ ko joxe ak li nga xamante ni mooy raxasukaayu loxo yi muy àndal pour teg ko à la disposition de l'IEF ñu ànd ak moom yóbbu ko ci école yi te duñu yem foofu danañ continuer ci sensibilisation danañ continuer aussi ci ci ci caravane yi mais aussi di gën a jege askan yi aussi di gën a waxtaan ak ñoom parce que le fait que nga toog ak ñoom rek di waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom la situation loolu dañ leen rassuré ci lu bari kon tey danañ jox jumaa yi suba danañ jox marché yi dimanche danañu jox aussi ñi nga xamante ni ñooy artisan am na beneen programme bu ci tegewaat aussi xam naa dès la semaine pour nañ ko lancé donc une valeur de 1 million 800 yoo xam lépp détergent lay doon moom it day fu masque yi jaaroon dafay jaaraat ko defee pour nii pérenniser liggéey bi kon feeg mbas manqué daal ñi ngi continuer du jour au lendemain ñu teg des stratégies pour accompagner les populations ci communication ci accompagnement ci lépp